société nationale d'électricité bu moo leen di may seen revue de presse bisimila coow li juddoo ci xeexum cigarette ak jiye yi muy def ci réew mi moom la réew mi quotidien xëy yeggeeñu coow lu dox diggante listap ak PNLT ndax listap dib kuréel guy xeex cigarette ak jiye yi muy def ci askan wi day tuumal coordonnateur bu PNLT di programme national de lutte contre le tabac ne daal lëkkaloog chef bureau législation ñu tëgg seen luwaa na mu leen ñeexee natt ko ba mel nan bëgg mu mel ñu jàllale ko ci lu kenn yëgut ci réew mi mi quotidien waa lista ba ngi naan yëf yi mënta doon lu dul dil ndax dañu noo seppi tegee ne tëgg luwaa bi na mu leen neexee jàllale ko ñoomi neen ci l'info it lista ba nga naan lii du neen ab dil la déggoo gu am seen diggante ñu jaaree ko ci dëkkëre boo xam ne waa listab neenu dafay faqatal liggéey buñ jot a def ci xeex cigarette ak musiba yi muy jur ci askan wi laasit wax ci coppite googa am ci luwaa bi xeex cigarette ci Sénégal coppite gu kenn yëgut tax yéene ci kanam industrie tabac gaa yi defar cigarette si yéene kaay bi nee na wonati nanu seen dooleeg seen diisaayu loxo bés bi gis ne booba jamono kilifay réew mi xamunu fu nuy teg seen loxo xamunu fu nuy teg seen tànk ci recrutement jàngalekat yi ndax yéenekaay bi ne premier ministre keroog ba muy def conseil interministériel ci ubbi teg l'école bi yëgle woon na ni daanu recruter ay jàngalekat maanaam jël yeneen jàngalekat dolli ci fi ne directeur formation communication bu ministère dëggal ko waaye mujjee càddeltu ginnaaw loola jur l'éducation l'observateur ci njàng meek njàngale mi wax ñu ana waral ay jàngalekat manqué ci réew mi njàqare gi ci jàngalekat yi amee Mohamed Moustapha Diagne it mel ni ku yëf yi jaaxal ndax ma nga naan boo maywul danañu tëj sax ay kalaas ñu jógee ca kalaas yooya dem ca hangar des pèlerins ndax la tribune ma nga ñuy xamal nañu amee woppi roño ñoom it ci njàqare gu mag la ñu nekk la ko waral di ya yanuy fajoo moo paan yéene kaay bay artu naan bu nu gaawul musiba am ndax malaat yaa ngay faatu ndànk téeméeri nit ñoo loru ci accident ci atum 2022 lii mooy bilan bi tukkee ci fukk ak juróom-ñetteelu édition semaine nationale de la prévention routière Espagne booba jamono di waaj a delloo si doomi Sénégal ya fa bàbbeeku jaar ci gaal yi waaye ci roppalaan lanu leen fas yéenee yàpp buñ sukkandikoo ci source a les économes lay wax na muy demee nanu bàbbeekoo woon dem noona lanu leen di yabaatee indi te roppalaan ya leen di indi yéene kaay bi nee na gaa yi dañ koo nar a ñàkk ndax téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ay migrant la ñuy doon Espagne Espagne googa yéenekaay bi xayma na ni fukki junneeg ñeenti nit ya yegsi ci atum téeméer boo ca jël juróom-ñeent fukk ya ay doomi Sénégal lañ Sénégal gi nag ministre de l'intérieur bu Espagne yéenekaay bi ne dina fi ñëw altine bi nu dëkmal ëllëg ci alxamis ji tribunal bu Ziguinchor dana létt Ousmane Sonko mbaamu firiko gannaaw recours ba mu fa yóbboo ki ngir ñu dabu seppi gi nu ko seppi ci liste électorale yi Vox Populi ne Sonko kay yaakaaram la ko wékk gannaaw jélub Ndakaaru gim fi amee keroog ci Cour sax tàmbalee na noo teg pression El Malick Ndiaye ubbi yëf yi ne dañuy gañe mbaa ñu gañe candidature Ousmane Sonko moom askan wee ko bëgg te képp kuy njiit war ngaa nangu loola maître Ciré Clédor Ly feelu ko ne ko bët ak nopp yépp ñu nga jëm Sigicoor mii mandargaal résistance di bañ avocat baa ngay fàttali ni képp kuy àttekat lenn dong mooy sa kilifa mooy luwaa bi nga xam ni moo dëppook bëgg bëggu askan wi waral muy laaj ndax justice bu Sénégal dana si géeti moom avocat bi ñu fekkati ko ci yor yor bi muy wax ci procès Sigicoor taxawaayu askan wu Sénégal yéene kaay bi yóbbu ñu it ca Maroc nenu foofa Antoine Diome dafa joxe dogal ngir maître Ngagne Demba Touré ma fa ne ñu bañ ko yeesalaatal passeport am instruction la di santaane gu mu jox consulat bu Sénégal ba nekk ca Maroc googa ngañ Demba Touré demoon gannaaw gàddaayam gi mu teewee fa ndaje mu fa patriote ya doon amal patriote yu jigéen yi ñu tëj ci kaso yi booba jamono sumb ab gerewu xiifal yoor yoor bi nanu la ko waral mooy dañuy ñaawlu nanu leen ci biir yéenekaay bi di ñaaw lu ñàkkum ndox ba ca rëbës ci biir vox populi frapp ak aluntine di wax la xew ca rëbës ak camp di lu doy waar jim ne rëbës moom mi ngi ci guddi gu bët setagul jafe-jafe yu metti la ñuy jànkoonteel ñoom ña ñu fa tëj njiital africa jom sant aluntine ne ko dolli ci tàngaay bu metti ba fa ne ak feebaru gaal di wopp goo xam ni ay picc la lay def ngay woqatu foo toll sa yaram wiy futtee nu ne ñu tëj ca kaso yooya rawatina ak ñi dëkk pikin yor yor bi nee na ab délégation pastef dana seeti seeni njaboot pastef ñoom nekk ba tey ci wan yoon la ñuy jaar ngir bokk ci élection B bu Ousmane Sonko bokkut yéene du génn El Malick Ndiaye Bassirou Diomaye Faye Biram Souleye Diop Abbas Fall ak Guy Marius Sagna waaye kaay baa ngay artu naan loola day fekk ñeent ñi duggagut kaso ci juróom yooya loxob Macky Sall bi bañ a dal seen kaw Pastef ñoom duggalagun seen loxo ci parrainage bi source a ne la ko waral mooy siggi coor la ñuy dégloo ba xam ban dogal lay jël ci mbiram Ousmane Sonko ëllëg ñu des ak waa Pastef ak les mi ñu yëgal ne danoo seppi seen seen nawle yu taxawu Dakar ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi firnde gi yéene bi nee na ab réunion ñoom député Pastef fii amal nañu ko barki démb ca siège pur te boole wun ca seen naataango yi taxawu waaye yëf yi mel na ni narta yomb ndax ci yéene bi ab député taxawu ma nga naan fas yéenewu wu ñoo démissionné ci groupe parlementaire bi luñ ci bañut bañuñu ko ci telleer leer na nu ne buñ sumbee xeex ca ca pàndaw la ndam li ñoo koy jël Mamadou Lamine Diallo njiital tekki booba jamono ci réew mi quotidien mi ngi bëgg ñu jël ay dogal ba yemale sañ-sañ yi ñu jox njiitu réew mi ngir sàmm askan week nanu koy jëfandikoo njiitu réew mi Macky Sall réew mi quotidien ma nga ñuy xamal sax ne listub gouvernement bu bees bi ëllëg ci alxamis ji dana ko fësal enquête naan waaye gouvernement bi fi jóge moom daanaka defu fi dara ndax yéene kaay bi bi muy xayma bi la ngub Amadou Ba ak gouvernement bi mu jiite woon gis na ne li nu fi waxoon yépp daanaka mënuñu cee def lenn waral askan wi wey di nekk ci torox tànge dige woon nañ fi wàññi njëgu dund gi luyaas bi frais scolaire yi ndox ak courant waaye yéene bi nee na boobaak léegi dara soppeekuwut ana yan coppite lañ nar indi ci gouvernement bi ñuy togg ko yàkk critique lii la xëy di laaj réew mi quotidien mel ni ku naan ko defal ndànk gaa yi seen yéex gi yépp dañu koo calculer Macky xam na li muy def bu baax a baax buñ sukkandikoo ci Assane Samb mi ci xuus ci biir yéenekaay bi di réew mi quotidien laas naan waaye yëf yi ni mu yàggee dafa jéggi dayoo ñeenti fan a ngi nii Sénégal amut gouvernement yéenekaay bi méngale kook matoog wasin gu metti lool Walf Quotidien yi ci boobale gouvernement la xëy wax joxoñ gox yi am enjeu ya nga xam ni mënta ñàkk ak yeneen yoo xam ne yi boo fa tabbut kenn coow topp coowal caisse d'avance bi le quotidien naan ñu daa mel ni mujjee naa nangu moom mbeerum ndakaaru ba woon ndax fay na juróomi million yi nu ko alamaanoon loola di ko may mu yaakaara am quitus fiscal ngir bokk ci élection présidentielle bi nu dëkmal jonganteeb xaritoo bi Sénégal dëkmal mu war a dox digganteem ak réew mi quotidien nga ñuy xamal ne Nicolas Jackson du ca bokk daa forfait te Abdallah Sima moo koy wuutu stade naan lëkkaloo ilimaan ak iso moom waree su ko wuutaleeg dara na muy doxee ca seen moo tax yéene kaay bi ne lu nu war a jéem la it ci équipe nationale làmb ma ngay wàccee Modou Lo naan kii duma daan waay doomu Falaye Baldé ji dolli ci ne bu ko teeloon na gis ñaar téeméer sax du ko ñàkk ci wàccaay yi ndax du ama mi moo koy jaaxal guy gi moom di tëkku Ada Fass naan duma passerelu benn gone Ada tontu ko ne ko waxal lu la neex waaye buñ jàppante combat ba benn minute sax du ko am yéen am leen jàmm dig daje ëllëg incha allah ñu yendoog jàmm Société nationale d'électricité bu Sénégal seen revue de presse